yow ñuy taxaw ñu jox leen ma ani ani ani dama ñaari ma jox ma yow ñu di nga ndogu fee pare non dama jox ci mu teewaare di nga ndogu fee pare ñu ngeen ñoom ngeen leen ñu ngeen ñëw jox di nga ndogu fee pare Thank you. booy booy Bousso gis nga ni bay gis nga ni waajalee bés Kër Massar instant bi nag toogaay amatul ndax bés bi na ba pare ndax le 29 moom bu neexee yàlla dans deux semaines rek ñu àgg ci ak ngi nii sama ngi nii waaw ma saa xam na ni incha allah ku ne xam na ma bàyyi nga waxal ma kii cooli si ndogu yi kii cooli cooli man li ñor mooy waa Kër Massar dëgg la Kër Massar laa bëgg mu am moo waral ma bàyyi sama lépp Angleterre ñëw Kër Massar pour liggéey pour développement Kër Massar dëgg la te incha allah fas yéene maa yem Kër Massar maa bëgg a wër département bi yëpp ànd ak sama mag Wally Ballago Seck ñu liggéey liggéey bu am solo Sénégal am ndam waaw euh, euh, euh, sa bopp waaw dama gis samp bu ñëpp xamee foo jëm doo egg waaw bu ñëpp xamee foo jëm doo egg ay ndaw lañ dañuy liggéey pour Kër Massar changé am développement bu rëy rëy incha allah dañoo gis ne Kër Massar daa bëri ay ay agression bi dafay bari ndaw ñu seen jang dese naa dese naa avancer ni mu war avancer hôpital bi laat na lu bari bari mën bi bu ñëwé da sonal doomu Kër Massar loolu mo suñu combat loolu lañ bëgg xex xeex yaa ngi dégg loolu mo waral ñu ñëw décrocher suñu mag Wally Seck fas yéene and ak mom ci liggéey bi nga xamne mom lañ bëgg def Kër Massar ku ne xamna ni wali Sénégal da ko ñor kon tay yow bo nekkee bo nekkee doomu Sénégal nekk ci all bi di rayante pour sa réew yalla dimbali ma ma am entreprise Angleterre entreprise boobu laa bëgg mu ñëw fii Sénégal ñu taxawal ko fi. def fi ay liggéey yu am solo. mais su ma nee Sénégal tamit sama gox laa gëm Kër Massar naa Sénégal loolu waaye Kër Massar laa bëgg a démarrer samay kenn nekkul sama ginnaaw yàlla suñu borom moo nekk sama ginnaaw ak samay nit wallaay ñu ngi nii dañuy sonn si man souvent ngoon ba jëkk ndogu bi mooy bi mooy troisième ñu def ndogu ah? ñaari fekk fi ñoom ñoo fi nekk ñoo doxal lépp ba mu dox man maa ngi soog a ñëw damaa voyage woon dem jëli billet yi. da nga am wax benn affaire boo xamante ne ñu bëri ñi nekk bitim réew dañoo ne dañu dañ parce que suñu ñëwee état du leen ko yombal yow ndax état yombal na loolu ba nga ni da ngay da ngay. waaw wax dëgg yàlla pour l'instant état yombalagu ma dara. Ah. waaye gëm nañ liggéey bi ñu def suñu paree état ñu yombalal lépp loo xam ne bëgg nañ kaa def bëgg nañ suñu paree si wàll bi taxawal fii entreprise bu mag a mag boo xam ne entreprise sécurité lay nekk pour doomu Keur Massar yi toog yëpp ñëw ànd ak ñun liggéey ñu defal ay contrat am suñu këyit légal chaque weer ñu mën leen a fay ànd si nag facilité see ànd ak borom kër yëpp bëgg nañ kër ñu xool loo mën a joxe par weer moo xam 1000 francs wala 2000 nga jox ñu ko ñu jël engagement liggéey pour Kër Massar jëm kanam pour Kër Massar am beneen xar kanam pour Kër Massar changé incha allah. ma loolu mhm. mooy maire wala kii wala nii et cetera et cetera est-ce ah, a ngi dox loolu déggantu ñu si siy waxtaan ak suñu maire yi pour def loolu. Ah. waaye non déggoo ko waaye maire yi moom ubbi nañu bunt yëpp pour ñu liggéey waaye daa fekk ne wàññi boo gis si benn lay commencé dañoo bëgg a démarrer si événement bu mat bii suñ paree soog a fas yéene jëmbal liggéey yi nga xam ne moom lañ bëgg a def waaye pour l'instant ñu ngi si événement bi buñ liggéeyee rek incha allah waa Kër Massar nañ gis. Ah, ñu gis ne Wally dafa jël nga nekkul sax mais il faut ma ma ma ma lancer message en tout cas. affaire boobu laaj. waaw dañoo gis Wally jël jël jël Pikine ba def ba si Pikine jël def ba si Kër Massar jël ba si parcelle ñu gis ne parcelle bi dafa mel ne moo gën a fës. waaw wax dëgg yàlla ñun suñu Bercy. Ah, si yow ndax communication ah, lu tax loolu. waaw ma ne wax dëgg yàlla ñun suñu Bercy gëm naa ne benn Bercy. gënu ko fës dëgg la te incha allah jour ji. ñëpp yëg nañu dañuy ñaan yàlla ñëpp gis. ñu ngi def liggéey bu am solo boo xam ne. suñu bos gëm nañu benn du ko waaye ñun li ñaan yëpp neex yëpp fees ndax yëpp gis seen bopp si seen Bercy yi ñuy tëgg muy Bercy Kër Massar Bercy Pikine Bercy Parcelles su dee sax Kër Massar dafa nar a jël lépp Kër Massar perte Parcelles Pikine gagné ñun ñu perte waaye ñun dañuy liggéey pour jëm si kanam dañoo bëgg promoteur yëpp nekk benn promoteur bu dëgg lépp loo dëgg yàlla neex yàlla fees yàlla ah. réussir ñun xëjoowuñ xuloowuñ xeexuñu dañoo ñëw pour liggéey pour defar Sénégal am nga njot ne dina fees bu baax a baax a baax a allah communication boobu yaa ngi koy def communication bu am solo aussi tamit bul fàttali si weeru moo tax mun ñu woon bu yàgg ba léegi ñu si liggéey bi te incha allah depuis le 15 depuis le ba léegi ñu nekk si liggéey bu am te dañoo fas yéene di ànd moom di dem ba te gëm naa ne communication bi ñuy def dina nekk communication boo xam ne ñëpp nañu wuy si incha allah. incha allah ah, yaakaar naa ne ànd nga seeg ak sponsor wala sponsor yi wuy see wuñu. waaw sponsor yi wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne ñu ngi ñëw ku si mel ne DRS moom mooy sponsor leader pour l'instant mooy sama entreprise bi nekk Angleterre. Mm. Ah, Kajoor immobilier ñëw na ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm. Tra moto ñëw na ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm. Casamance ñëw na ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm. Ndoye Lébu gi ñëw na mooy Lébu gi traiteur ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm. Tana boutique ñëw na ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm Ouba aussi ñëw na ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm Ouba ñëw na waaw dinañ si gën a def ay liggéey yu am solo ba nga xam ne ñoom aussi euh, ñoom ñoom sponsor yi nañ ci mën a gis seen bopp incha allah soobu yàlla waaw ñun dem nañ suñu wareef si côté boobu dem nañ fépp bu ñu war a dem dem nañ fépp bu ñu war a dem gisaguñ kenn kenn lañ gisagum moo ñu tegum loxo pour l'instant muy Ablaye Sow wax dëgg yàlla moom moo ñu tegum loxo ak Fatou Sow député ñi des ñëpp gisaguñ leen waaw ñun daal xaar ñu kenn suñu bis pare nañ dañuy liggéey pour Kër Massar ku ñëw ànd ak ñun ñu ànd ak yow Kër Massar am dam ku ñëwul pare nañ pour liggéey Kër am ndam incha allah bu soobee yàlla. benn jeune taxaw pour euh, première euh, édition nga bëgg indi ki nga na ko pour waaw waaw yombul waaye yàlla yombaloon dama ko wax dëgg yàlla ak équipe bi ma àndal wax yàlla fi mu toll lépp yomb si ñun yombul nag liggéey événement wàll yombul métt na lool waaye wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla amuñ ci benn coono amuñ ci benn naqar amuñ ci benn benn regret ñu ngi sant yàlla baax baax soo gisee xam ne waa Kër Massar nga sama ginnaaw pour événement bi am ndam pour événement bi réussir pour doomu Kër Massar kontaan wax dëgg yàlla gëm naa ni daal lépp dina jaar yoon incha allah bu soobee yàlla suñu borom waaw dernier message moo ko la jël jox ko samay nit ñoo ko géré man géré ma dara wax bi may wax sax neexuma su ma sañoon ñoom ñooy wax su ma sañoon man damay dem fay liggéey pour Keur moo loolu mooy côté billet yi billet disponible na billet 5000 billet 10 000 ku ko bëgg nag ci billet yi am na numéro yi nga xam ne nañ ko def ci baar bi boo leen paree ngeen def ko ci ah table 1 million yi na aussi tamit pour réservation yi ah. waaw pour réservation après nañ joxe ci suuf waaw sous réservation lay doon après nañ joxe ci suuf numéro yi nga xamante ni ci la gars yi di contacté wu pour que ñax ñax koo xam moo tax ma ne après nañ joxe ci suuf numéro yi buñ def ko ci baar muy muy daw gars koo jël billet yi disponible na pour le moment ah. mais gars yi nga xamante ne ñi nga xamante ne ñoo bëgg a ñëw ndax amuñu wax. ba gën a ñëwee coow ñun ñu ko song. Kër Masar ba gën a ñëwee. Thank you.

baax na nii ah si ginnaaw baax na yéen. cadre bi c'est bon. test micro. c'est bon. ñoom taxaw na ak ñi nga xam ne. Bay bu ma teg sa caméra Mbay ma teg sa caméra bi. yaa ngi ko pare. loolal la. yaa ngi pare lan lay pare. des ko message. waaw. Ah. Mbay ma teg sa caméra bi. Ndar naa la. Mbay fay naa la. nooy waajalee eh, eh, nan ngeen di waajee seen événement fii ma ñëw fii Kër Massar ay fekk la. Ah, eh, waaw événement ñu ngi koy waaj mbay ñu ngi koy waaj ak doole macha allah di wax ñëpp nañ ñëw rek ñu waajal ko le 29 avril incha allah ah, ah. relation ak promoteur bi parce que gis naa yu ba léegi nelawatoo nekkatoo c'est normal eh. événement la dañ si jàpp rek événement wàll la eh. waaw mbay événement wàll la jaamataan na bu dañ laa yebal ci